không đường này có lần này Thank you. yàlla rek yàlla rek yàlla rek gis nañu gis nañu taxawaay bi cotisation yëpp mën naa leen trop ñaan yàlla rek ñu teewee ko ay at at at bu dàq ren incha allah te bëgg nañ bu déwénee ñu defee bu mbedd mi daa ba nag ñu a si woo bépp commune ñu jëm ñëpp woo ñëpp nag pour ñu ñëw jàpp si gis nañu ne yeneen commune ñu ngi koy def pour pourquoi pas ñu. kontaan nañu si Ndiéyeen Info gis nañu seen taxawaay baax a baax a baax. muy wàllum sport bi culture bi yëpp. yàlla yokk rek. ñu hmm, ñëpp di ziare ñëpp ci koor gi ñu di baalu ak ñëpp tey baal ak ñëpp di wax ne tey ñu ngi ci suñu nga mi def journée bi nga xam ne moom la ñu def su koy def ndogu boo xam ne jeunes yi ñoo ko initié woon tey àndoon seeg suñuy jigéen suñuy góor suñuy mag ak suñuy rak suñuy papa ak suñuy yaay ànd seeg ñëpp ñëpp ñëw taxaw si tamit ñëpp seen loxo nga xam ne tey journée ñu ngi nii. 哎，兄弟，兄弟。 di ñaan yàlla yàlla nañ ko yegg jàmm si tamit di ñaan chaque année yàlla nañ koy man di man chaque année mu gën a dàq année bi nga xam ne moom moo weesu lii daal moo bi nga xam ne moom la ñu organisé woon si kontaan lool aussi tamit di wax ne ñu ngi ci am lool lool sax ndaxte daf ngir yàlla moom amul lu ko lu lu koy mën a fay kon donc tey bu ñu gisee lii ñëpp ñëw jàpp ci kon donc dañ ci sant yàlla bu baax baax di remercier ñëpp ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo di ñaan liñ def ren man lu ko ëpp déwén loolu daal lañ amoon li nga xam ne moom lañ ci wax ci kontaan trop di leen remercier yéen nga xam ne aussi tamit yéen a ngi ñëw pour jàpp ci bis bi pour mu gën a taaru wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a taxaw dëggal taxawaay yàlla gën a taxawaay àdduna yëpp li leen yëg ne wóoruma yaa ngi ñàkk bàmmeelu bi doomu yow bu nga demee bay nëbb si li nga <laughs> indi palaat bi te waxuma ay ah, palaat bi génn ko voilà waxa yow ñëwal ñu di ayam maa ngi xaar de bàyyi la ah. bàyyi sàcc mooy bàyyi sàcc mooy ay de. yow bố bố lên mày chào bạn chạy đâu mà đã mát đâu mà. Hello. Nhưng mà Đưa lên ngoài cửa Đưa lên đó Orang tinggal sumpah deh, punya buah kondisi ini, tapi aku jadi mau, tapi dari tangga le masala quoi. Non, hein? Cakap mula ke dia meda. Bye bye. Kau kali bye. Orang yang sumpah deh, punya bawa di sini tapi apa dia mau dari dari tangga? Le masala quoi. Non, hein? Cakap mula ke dia meda. Bye bye. Kau kali bye.